min nifaaq mu ne man pay yàlla dafa waxoon man ne ma yow Cheikh Ibrahim may gaa googu jëlal maa lahu min nifaaq te gudd yi jeex bu bufta di wax ku yor lu dul jeex yow nga yor luy jeex te yow li nga yor astaqilla ca taalab ba mu ne dëgg dëgg xoolaatal sa bopp ku yàlla nam ma rekk rek mooy ote loolu ku yàlla nam ma rekk rek mooy ote loolu waaye ku yàlla nam ma baaxee li muy oote mooy bëgg bàyyi nekk taalibe bàyyi jeex ci bàyyi ñi bàyyi bàyyi nekk di ay kilifaam nekk di ay xalifaam nekk di ay roykaayam ñooñu nga jox leen cëri Mawlana Cheikh Ibrahim ndax bàyyi jàngale na ci Jawaahir Rasaa'il ci Cheikh na Ahmad Tijaani ne moom mooy njabootam njabootam ñooy moom wal kullu huwa wal kullu wal kullu huwa moom mooy ñoom ñoom ñooy moom تدين فلا بلي شيخ دجال نون فلا بلي تي باي باي موي جابوتام جابوتام نوي باي تليب باي سو خامي رك نوكول سيني عثمان سيك واجرو الحاج عمر خالد سيك بي دهوي واي باجس دكو واي بوم ياد مون لو كان اهل الارض يعلم شيخنا لا اطلوا ديارهم وهموا لقربه مون نشوف نيب بن قبون سيرين بي يالا جوخ مي باي موي كان mu ne la atallu ñoom ñëpp di leen tëj seen kër yi géntal seen kër yi wa humul qurbi yi doon uti baay parce que xam nañ ne jëmmi njëriñ mooy doon uti baay mu ne ngir lan mu ne képp koo xamante ne nii tànn nga keneen kaw Cheikh Ibrahim man jaala faayiqan min fawqiha faqad maana loolu Cheikh Ibrahim képp ku jël nit teg ko sa kaw rek kooku noonu bu من والمؤمنون حقا مما اقول قد قالوا من لم يقل منهم هذا فقد خان من نيغم يالا دغ لما واخ لا نخ تا موي لا باي كين فريد كو كو كيب كو واخ لو اوتك موم رك فقد خان ورنا باسكو غوري يالا يب تي bàyyi nekkee ci laytaay xattan ma fatxe inda mahdi boobu la góor yàlla yëpp sukkal Cheikh Ibrahim boobu la góor yàlla yëpp jaayanteeg Cheikh Ibrahim nekk di ay liggéeykatam kon suñ demee ba tey nit di oote leneen benn wor nga wala ci ñooñu moo tax ñi ngi ñaan yàlla yal na yàlla may ñu Ibrahim yal na yàlla may ñu nekk taalibe Seydi Ali Cissé dafa bind wax ne muridu sadiq bu xamoon lim am ci ay maqaama mu ne bu ko noon du sàkku nekk sëriñ mu ne ndax muridu sadiq moo gën a kawe te moo gën a neex nekk sëriñ mu ne moom de su doon sàkkuwaat day sàkku nekk muridu sadiq waris mu nekk sëriñ rawatina na nga nekk muridu sadiq ñeel kooku nga xam ne moo garantil ku ko topp leen ko garantil loolu doy na nga ne Cheikh Ibrahima moo garantil taalibeem lim ko garantil ci ay kawe ci ay maqaama ci ay ngëneel te yow li nga soxla yëpp loolu la kon loo yootoo leneen wala ngay xëcc leneen bàyyi wax na ne qad faaza ahbaabi mada al azmaani tafaddulan wa'dan min arrahmaani ñi ma yàlla boole ñuy samay taalibe di samay soppe raw nañ te diitam jamono ñooy raw bàyyi mu ne wa'dan yàlla moo ko ko lerante moom ci loolu dégg nga a arrahmaan yi ba pare deelante moom nekk it fadlan nekk nga yàlla may mbolis keneen ku dul moom na képp ku ànd ak moom ay raw nga lu tax nga raw parce que yow muraad nga kullu man sahibani muraad li daka naalu kullama la ndax wax na wa ma alimu annil muraadu xaqiqatan xamu muraad la na mu nam yàlla la taalibe mi ànd moom it ay muraad lañ ndax bàyyi nee na ku ànd ak rek doo murid muraad nga lidaka naadu kullama araadu moo tax lépp lu ngam rek am na koo xam ne loo soxla am nga ko looy uti ju fa nga xam ne wóorul ndax da nga am wala doo am wóorul ndax kilo am na wala amut te kii lim am du jeex ñàkk bopp rek koy waral wala ak ndox wala ku yàlla nammut a jëri ndax li Baay waxoon ne laa yuhibbunii siwaa saadin kenn du ma bëgg lu dul ko texe waaye képp ku indi بنين ملو كان بدون مورك ولا عكس في الحال المغذية يقول أنا بوقتي ولا عكس في الحال مرخت حيدر مورك أنا يا الله دجال سني محبة تشمهم دجال سني تالي بتشمهم ولا يتشني أخم نسوي بوم ردا بومو كتير جوكم بومو حاج ما عبدنا نيانو نهو يا ربي فجعل وصال حبي بحمله مزدهري ويومي وليلتي يا الله يا الله جوكم نسوي بوم تبومي ولا أنا شيخ برايم بدو دجال بوم بفتدي وال بقلت بيتعو شيخ ابراهيم نعم، اين صاحب الخليلي تدخلوا تسابقوا الله